xam nga ni yëfu motion de censure je pense que pour wax waxuma kii mais c'est la deuxième fois euh, mu risque de passer parce que euh, amoon na fi je pense que même il y a une motion de censure qui avait été rejetée contre Amadou Ba mm -hmm. le gouvernement de Amadou Ba 2022 nga xam ne opposition je euh, pense Yewwi Askan Wi ñoo ko déposé woon mhm. mais il se trouve tout simplement dañu war a rappeler Sénégalais yi le peuple mooy le peuple souverain mm képp ku dem assemblée nationale. suñu peuple moo la fa yónni. mais ni leen mooy ndaw réew mi ku yónni ku yónnee mooy le peuple dafa yónni nit kooku di ko représenté boo représenté nit ki nag. da nga war a toppatoo intérêt ki nga xam ne moo la yónni. Mm-hmm. lu mu bëgg la volonté du peuple. la volonté du peuple nag je pense que exprimé nañ ko le 24 mars 2024. le peuple souverain la ñu woo ci ay conditions yu doy waar parce que Sénégal mënoon na nekk ci beneen situation aujourd'hui ñi ngi sant yàlla ba xeex yépp mujjee ci élection yi ñu jàpp ko le 24 mars 2024 ci élection boobu pour la première fois en Afrique ñu gis pouvoir boo xam ne mu ngi toog Maria. fukki at ak ñaar nee na am na bilan bu rafet ba génne seen livre blanc. naa leen ko peindre dina beneen couleur tout à l'heure. <laughs> am dafa fekk ne am na loo xam ne waxuñu ko ci. ok ok. peuple décidé au premier tour. Ivoirien di naan le coup kaw. déraciner pouvoir bi fi nekkoon au premier tour. je ne l'ai pas vu en Afrique. loolu signal fort la à cinquante quatre virgule vingt pour cent ci programme bi nga xam ni la coalition Diomaye président moom la jaay sénégalais yi jiital son candidat le président Bassirou Diomaye Faye diñ ci bindoon ci biir ci programme bi dañoo war yaxanal un peu les ressources du Sénégal dépenses publiques yi yoo xam ne amul benn njëriñ wala amul benn efficacité ñu jéem ko wàññi mooy rationalisation des ressources de l'État loolu sénégalais yi d'accord ci voté pour le candidat bu porter ce projet et yu ñu war a yaxanal aussi am na agence am na ñu tudd au conseil des collectivité territoriales mm-hmm. am na conseil économique social et environnemental mm-hmm. non je pense commission nationale de dialogue des territoires kooku décret mën na ko dindi parce que du institution mm-hmm. te président def na ko am na aussi je pense que sur le dialogue social bu madame Ntap Ndiaye yéeg yëpp proposition bu ñu propose sénégalais yi ñu d'accord ci bu ci peuple bi d'accordé te peuple boobu moo yónni député yëpp à l'assemblée war nañu bu ñuy teg ay ay ay ay ay ay pas wala ay position di jëlee position nañu xool lu intéressé peuple bi pas lu intéressé ku nekk sa intérêt parce que tamit ñu ngi ñaan depuis des années ñu am benn assemblée nationale de rupture. Mm-hmm. bu assemblée nationale boo xam ni ñu naan ay député du peuple. Mm-hmm. mais lan la ñu gis assemblée nationale depuis quelques années xeex. intérêt personnel wala euh, majorité mécanique mooy lan man député du ma député du peuple te peuple moo la fa yónni man député wu Macky la je vous cite le cas de Malaw Sow toog ci biir assemblée ne ma lu mu indi mu jàll damay gëm doo doo xool lu peuple bi bëgg. loolu nag ko député boobu de toute façon nañu ko nangul ay. non non a plein y en a plein nag je cite juste un exemple bu xam ne daf ko wax mu clair. bu ñu ñëwee nag léegi bi ñu nii bon dañuy appliquer li nga xam ni euh, coalition Diomaye président jaay na ko peuple peuple ne d'accord ñun dañ koy appliquer ñun du fi am du fi am parce que ça les intéresse pas c'est pas de leur intérêt or le règlement intérieur de l'Assemblée nationale interdit de faire des choses en fonction d'intérêt de groupe d'intérêt man je considère que li nga xam ni signal fort la depuis le 24 mars waa Bennoo Bokk Yaakaar nga xam ni déjà seen mentor tas na leen bërki démb hmm. la coalition n'existe plus euh, mais mais Moussa Diop yaa gën a xam ne Bennoo Bokk Yaakaar tamit bon voilà ko kii tur bi rek moom moo fi nekkoon mais ñëpp xam nañu non pour vous dire donc comme que tur bi fi nekkoon yaa ngi may conforter sama position que député yi leen représenté tamit tur bi rek moo fa nekk parce que y a une nouvelle majorité boo xam ne sénégalais yi wax nañu ko à il devait donc regarder l'intérêt du pays en prenant certaines décisions ñoom nekk nañ fi 12 ans seen ay programme bu ñu nee ñun ñu ngi koy appliquer c'est par rapport lu ñu diggoon Sénégalais yi dans nu mu tànn encore euh, euh, yoonu yokkute mhm. avant de devenir le PSE loo digg nag nga mun nekk bor boo ko appliqué li ñuy xaar rek mooy bilan bi est-ce que ça a été satisfaisant ou mais li li nga diggee nga appliqué ko dara nekku ci loolu la ñuy ñaan en politique ce qui n'est pas le si des politiciens man lu may jàpp ci seen comportement bi mooy xam nañ ni dissolution lañ jëm ci baru d'honneur lañu nekk mooy ñu voté ñu dissoudre xam nañu dañu leen di tas. mais mën naa am ay conséquences politiques yaa ma yaa ma gën a xam loolu aussi tamit bu fa bul wax baru d'honneur parce que euh, FMI dañ fiy ñëw suba. Euh, ngir xool lu nga xamante ni moom mooy xaalis bu ñu subventionné et tout et loolu aussi tamit euh, que Sénégal dafa am crise institutionnelle loolu mun a nekk message su fekkee dañu dissoudre le gouvernement même su fekkee le président euh, mën na reconduire le même gouvernement aussi tamit mun na am ay conséquences politiques yoo xamante ne dañuy wax ne institution yi jubawuñ Sénégal te loolu c'est pas une nekkul message c'est pas un message bu ñu mën a wane. exactement donc yaa ngi toujours conforte li may wax. non yow kay dama lay wax pourquoi yaa ngi koy conforté mauvaise image la si suñu partenaire financier et technique mauvaise image la su dans le monde naan le gouvernement di ko def motion de censure wala bañ nañu voté benn loi boo xam ne c'est un programme politique. Mm-hmm. à qui la faute. kan moo ternir image Sénégal ci côté boobu kii bëggoon appliquer programme am signé par le peuple sénégalais souverain wala ki nga xam ne pare na. nee nañ ko non mu ne lekkatuma ci dama ci xëpp